salaamaaleykum Serigne Ndiaye Bouna mu ngi nuyu waa Sénégal tey nag ma bëgg waxtaan ci ginnaaw bi ma gëstoo mbir si Senghor tooguma ci baawu école waaye jàng naa daara mais teewut gëstu naa kan mooy Senghor pour yéen Sénégal yi ngeen xam kan mooy Senghor ba ci njëkk mooy Senghor ci biir këram moo xam ni mbindaanam moo xam mi secrétaire comme ci masaana soxla du jékki-jékki rek jaar ci sutura ko def yëf yi mel noonu danaa ndax am nga jot tegginu waxam ba noppi dafa amoon yar moom Senghor loolu am na lu muy jàngale foofu nag war na ne kon boo nekkee njiit yàlla dénk la nguur maanaam yàlla desitu la dara kon li nga war a njëkk def mooy yaru yar boobu nag dafa mel ni manqué na ci léegi sum njiit benn bis tamit doom ji mas na di tukki ndax bu leen fàtte ne doom ci tamit ci suñu école yi la jàngale la lañ jàngee demuñu bitim réew di fi jànge loolu tamit mi ngi wane ne maanaam su suñu euh, école yi fi leen war a jàngee mais jël sa doom di ko jàngale bitim réew pour bu ëllëgatee ñu beneen amaat beneen comportement te fekk comportement réew yu ak aadi réew yu xamuñu ko loolu tamit catastrophe bu rëy la kon si nga wane woon na yoon ba demee France mu ne ko nag boo demee bul jaar ci ambassade bi ndax sa yoon nekkut ci ambassade bi di am looy wax ak ñoom ko def yëf parce que nekk naa président rek sama doom sama papa nekk na président rek du tax nga def neneen neneen gis nañ tamit ne doomi président yi léegi nu nekk lay lëmbee euh, réew mi ak gouvernement bi ak alal ju takk yoo xam ne si nii ñu ngi ciy ñu ngi ciy am jiixi jaaxa bis tamit doom ji mas naa jël ab oto oto gouvernement bi ci biir palais bi ànd ak i xaritam wër Dakar keroog Senghor ñi ne ci palais bi yëg nañ Senghor mer woo xam ne ni musuñu ko gis mu mere noonu ndax doom ji oto bi mu jël rek ci biir palais bi di di di di di moom dëkk bi. loolu tamit Senghor mi ngi fi jàngale ne maanaam nekk nekk ci gouvernement bi du tax oto par boo dem di wane na sama baay mooy góor moo moo yor réew mi nu ma neex lay def. loolu tamit maa tay la te loolu tamit loo xam ne dana war a delluwaat fa yoon wa Senghor joxe woon ndax moo njëkk nekk président won ñu yoon benn bis tamit euh, bi mu demee ba am at yi nga xamante ni Abdoulaye Wade am na ko ci la jël réew moom at yooyu la am yëg na ne fii mu toll nii day kattan ba mu doon am ak ni mu doon xame nit ñi xaw naa mel ne lu mu xam ne kattan na yorum réew te réew nguur kenn du ko ñedd mu démissionné ba mu tamit. ci réew yu golfe arab yi dajale na xaalis bu toll ci 500 million pour na ko dama nga noppali ji ba mu gisee xaalis ba ko ba ñu ba ñu ko joxee xaalis boobu mu xool ko dana leen lii lu ma ko dee xanaa da ngeen bëgg ma dof ci la jël ñu xaalis boobu jox ko ñoom Moustapha Niass ñu def ci fondation du Senghor te Léopold Léopold Senghor tamit ñu ngi ci jàngale na ne maanaam moom ci boppam bëggiwut xam na ne alal jooju noonu du ko lekk. te kon bu ko jëlee tamit ay jàmm da koy lekk kon war na ko mën a yéene Sénégal yi lii ay waaj yi seetal lii benn bis tamit doom ji benn banque directeur ba na ko lebal xaalis Senghor woote ci banque boobu laaj la lan moo tax ngeen lebal kii xaalis yaa ngi dégg ndax am na lu ko mën a fayee ba ngeen koy lebal xaalis bu doon suñu jamono jii. da nga naan ay millions yu milliards yu moo tax yéen ñi nga xam ne si yéen doom yi président yi moo xam ñu mën di doon li lay war a soli xii dimbale leen si papa yi ba xam ne réew moom moom moomu ko dañ koo dénk rek te moom doomi président bi ak man mii ak sama doom ñoo ci bokk yem te man gënuñu ma bëgg lu baax mais tamit ginnaaw bi la yàlla dénkee maanaam teraanga jooju rek fi la teraanga yem kenn xaalis boobu noonu dafa wax banque ba ne na dindi leen contrat bi retiré leen ko ci nu mu gën a gaawee sëñ bi foofu tamit Senghor wane na fa yoon woo xamante ni kon Senghor wan nañu yoonu président te bu leen fàttali yéen Sénégalais yi Senghor moo njëkk nekk président de Sénégal léegi kon bu ñu wàccee yoon wi rek kon delluwaat yoon woowu lu war a mën a nekk la te day nekk nag te loolu Sénégal yi dañoo war a xam loolu xam ne Senghor bëgg yi wutoon Senghor ku respecté woon doomu aadama la Senghor ku bëggoon doomu aadama la Senghor ku respecté woon culture la. kuy kuy ku yërëmoon Sénégal yi tamit ci yu baree baree baree bare te loolu lu mën a seede la benn bis tamit euh, mindaan mi mas naa boot doom ji bi ko jabar ji gisee daan na ko wàccal wàccal wàccal wàccal wàccal doom wàccal bi Senghor na na na rek bàyyi ba jabar ji génn mu woo mindaan mi mu ñëw mu ne ko dee ko boot dee ko boot ndax ba may nekkee xale dan ma daa boot dan ma boot loolu tamit mi ngi wane cosaan nga xam ne ko loolu lépp mi ngi wane ne ku respecté doomu aadama la ku bëgg doomu aadama la léegi lan moo tax suñu président yi maanaam yab ñu lu tax ñu xeeb ñu noonu la ko mën a gisee parce que yi dégg ñun en tant que dong daara ñu ko dégg te jàpp nañ ne tamit li wutu mën a am kon yebeel am na xeebeel am na te ñaar yooyu noonu képp ku nekk ci nit rek kooku bañal daa war a dugg man nit bu ma yebee ma ma bañ ko bu ma xeebee ma bañ ko. kon boo gisee suñu président yi ak suñu njiit yi ñu am mañeel go am suñu diggante ñu ne population bi. danoo defu lu war a def wala ñu wax lu ñu wax wala ñu jëf lu ñu jëf mais saa suñu tegoo ci dëgg rek mbëggal am yebel du am te kenn nekk da ngaa war a respecté sa morom te xam ne c'était addina bi nii kenn dafa dund téeméeri at te jógewoo fi loolu nag te bakkan waru daal à chaque fois rek mën ngaa dee surtout jamono jii nga xam ne surtout nii nit ñi dañuy dee comme weñ ndax nit doon toll ci àqiru sama te mujj jamono te alal jooju noonu ko lu mu bari bari foo ko mën di def rek tubaab yooyu ko mujj jariñoo te tubaab yooyu gën ñoo liggéey ndey gën ñoo bëgg lu baax moo tax yëf yi il faut ñu toogaat waxtaan ak suñu ngegnaay tëdd bu guddi waxtaan suñu ngegnaay waxtaan ak suñu ngegnaay loolu nag bépp njiit bu mu mën di doon rek laay waxal man bu Ndiaye Bouna Serigne bu Bouna mi ngi leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf